waaye nekk ci weeru suñu borom yi bi jamono ju tedd rawat na ñu nekk ci fukki fan yu mujj yi ci koor waaye yàlla defal ñu tawfiix ñu ànd fi ak sëriñ Aafiya Ñaŋ di jariñu ci xam-xamam ak ci e, doxalinam bu ñuy jàngal lu bare bari ñun ñëpp ni nga ko waxee woon bi profité ci jamono yi mu fi nekk di jàngaat ci moom bu baax a baax a baax mu mel ne dañuy continuer liggéey bi ñu nekkoon muy laaj yi fiq yi ak laabire yi nga xam ne sëriñ bi dafa laabire mbokk taalibe ak mbokk jullit fi teew yëpp ñu ñuy seetaan ci mboolem àddina bi xanaa ñu bàyyi ko mu nuyoo ba sëriñ mën dugg ci liggéey bi incha allah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin alhaadi alamin wa ala alihi wa ashaabihi altayibiin altahirin wa man ittabaahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Xaadim ko ñu ngi leen nuyu baax di leen eh, ziyaara ci weeru tedd bi ak ci béréb bu sell bi di am mbégte itam ci dellu siwaat ci jataay bi bokk laa ak bokki jullit yi ci loo xam ne danañu jariñ ci suñu diine waaw ko wàcc ci bëccëgu waaw bismillaahi rahmaani rahiim ku wàcc ci bëccëgu euh, koor bu fekkee ne wàcc mi teyu ko daf ko not tey euh, wanaatul dara ci li mu doon yàbbe amul dara lu dikk ba ci gémmiñam mu wanaat ko kon su boobaa kooram baax na koo xam ne nag wàcc mi mu wàcc moo ko tey moo sabab lu wàcc ga dafa def li ñuy wax looju ci wolof mooy moo woo moo woo wàcc bu fexe ba ba wàccu su boobaa kon kooram yàqu na. bisimilah xëy na mbokk mi mu wax ni lan mooy àtte tux cigarette daa mel ni mu laajee waxu ci xam-xam yi dañ cee wuute. Eh, ndax xaram na wala xaramut eh, maanaam dañ cee wute daal eh, am na ñu wax ne xaram na am na ñoo xam ne nee nañu xaramul ci masala boobu ci la ku ñuy wax Cheikh Ibrahim al Baghdadi jéblu woon ci Serigne Touba Ibrahim al Baghdadi borom xam-xam mag la woon boo xam ne fu wër na ci réew yu bari ba yegsi woon senegal nekkoon natt ngoob si si Mor Anta Sali eh, daan jëfandikoo pon ba am mu ànd ak sëñ bi ñu nekk ñu ñuy dox ci ci ñuy leen ci tukki ba yàgg mu génne gënn gënn gi muy li muy pone eh, génn pon mi di waaj bay bëgg a def laaj sëriñ Tuubaa ne ko damay laaj lii nii luy atteem li muy bëgg a def maanaam muy muy tox luy atteem Euh, sëriñ bi ne ko da ko xamuta mu ne ko ah, déedéet ndax am na ñu wax ne araam na am na ñoo xam ne nee nañu xaraamut mu ne ko ba tax na kon yow fi mu ne nii amul amoo ci amoo xam-xam bu daal ci ne xaraam na wala mu ne ko déedéet mu ne ko laxdar lan la waxoon ci mukallaf lu mu xamut xaraam na xaraamut mu daal di ko ne mu daal di mel ni nee daf mel daal loolu dafa dugg ci xalam ci la dogoo ci ne kon da da koy bàyyi ci la gas mu daal gas ba mu xóot mu fab eh, la defoon ci pon maag jumtukaay ba ko doon defee lépp suul ko wëlbati ko tàllal koy loxo ne ku yóbbu ci yàlla ku ma gën a xam yàlla laa nuwut te gis naa ko daal di jébbalu ci moom waaw waaw mm-hmm. mooy kon tont bi mooy kon dañ cee wuute ndax dafa xara ñii ne xaraam na ñii ne xaraamul Euh, waaye mu kon loo xam ne amul am na lënt ci moom na ca taxawlu hmm. bañ caa dugg moo gën a wóor hmm. waaw ak sabra di ni wala ardihim ngoog waaw euh, euh, gis moom mu sol suwaa hmm. mu am ko ni ko suwaa yooyu bokkut ak yi ñu gis nii muy laaj lan mooy suwaa bi nga xam ne moo araam ci góor mu sol ko suwaa bi xaraam ci góor mu sol ko mooy suwaa bi nga xam ne Euh, ay sax moo koy defar moo koy yàbbi li ñuy wax verre à soie sax wi woowu nga xam ne mooy doodatul xas loolu soie boobu muy defar noonu loolu ñu nga xam ne ci moom ñu koy jëlee loolu mooy soie bi nga xam ne dafa dafa xaraam mooy soie bu soie daal waaw loolu mooy bi xam ne moo moo xaraam ci góor mu sol ko. Euh, des ma leer nag ba xam bi bii nii ñuy sol ba la waa jar gëstu la. waaw muy ba tey euh, dafa am ay yére góor yoo xam te nii. Mm-hmm. dañ koy sol. Mm-hmm. waaye day am ay xeeti wëñ yu ciy nekk yoo xam day lerxat. muy mm-hmm. ndax loolu dana tax mu bokk ci ñi nuru nuru sol lu indi jigéen wala déet. Euh, bu fekkee ne loolu ci ci def muy lerxat jigéen ñoom duñ ko def ci seen yére. laxat googu kese rek bu fekkee moo ci nekk nga xam ne waaye bokk ci li jigéen ñi def ci seeni i ñaw ñoom duñ ko jëfandikoo du luñ jagleel jigéen daal du xeetu wëñ boo xam ne jigéen rek ko baaxoo jëfandikoo euh, kon bu ko góor defee ci yéreem itam duñ ko jàppee luy niru niru jigéen euh, ndax bu fekkee dañoo wax ni dafa am der yoo xam dafa dafa ci nit mu jëfandikoo ko. Hmm. bu fekkee day julli wala dara. Hmm. nee na dañ gis ay ceinture yu ñuy takk. Hmm. ak ay montre muy doon ay der te xamuñ ci ban der lañ defaree. Ah, nga xam ne daal moom lu ñu defar la ba mu ba mu ba mu sell ñu mën koo takk nii bañ cee gëstonte ba xam der bi der yi ñu ko defaree ndax yu yu yu yu mu bañ xóotal ci gëstu daal te rafet njort rek ci ne eh, lu laab la ndax am na xadis buy wax ne eh, bépp der boo xam ne sëbëj nañ ko laab na eh, te it ragal nañ ne xëy na bu der yi ñu koy defare wut doon der yi der yi waaw fi ñu sëbëjut waaw melo mi mel. ndax melo mi hmm. kii mooy ndax lan mooy takkaay li may ab jullit mu takk ko ci wàllu ñaari ñaari day nii ci wàllu or ak xaalis. takkaay lislaam da ci teqale góor ak jigéen bu dee jigéen lépp bépp takkaay boo xam ne or la wala xaalis sañ na cee takk lu ko soob. ci xeet takkaay bu mën a doon moo xam chaîne la moo xam jaaro la moo xam lam la moo xam leen lu mën a doon euh, ak it takkaay la la ca ci or nu mën di tollit amul dagan na daal ci jigéen moom mu jëfandikoo or wala xaalis ci takkaay ci xeet takkaay yëpp ak ci tolluwaay yépp bu dee góor nag dañ koy tere moom mu takk or takkaayul or dañ ko koy tere xaalis nag sañ na cee takk jaaro jaaro xaalis jaaro boo xam ne xaalis lañ ko defaree te la ca nekk ci xaalis matul matul ñaari dërëm waaw ëpp ëppul ñaari dërëm waaw la ca nekk ci xaalis ëppul ñaari dërëm te moom it amu ci lu benn jaaro benn jaaroob xaalis bu ëppul ñaari dërëm daal mën nañ ko may nañ ko góor mu mu mu mu mu sol mu kii ko mu takk ko ñaari dërëm nag euh, du bari nekk euh, nekkul loo xam ne lu lu bari la ndax euh, ñaar téeméeri dërëm yooyu ñu wax noonu poids mooy euh, cinq cent quatre-vingt-quinze moom mooy mooy mooy mooy cinq cent quatre-vingt-quinze grammes lay tolloon cinq cent quatre-vingt-quinze nag moom boo kon boo ko boo ko boo la cay jël xam somb ñaari dërëm yi ni mu war a ci ci ci xaalis du nekk lu bari tuuti lay doon as njaaru su ndaw lay doon kon waaw waaw kon daal eh, lu tuuti daal ci xaalis lay doon kon du bari te jaaro lay doon te ñaar benn lay doon te du ëpp ñaari yooyu mu wook mu wook Mm, waaw xam nga jaaro bi ci ci ci la def tampon tampon xam nga mandarga rek la moom mandarga rek la da moom bu defee matière ci biir jaaro bi bu tooy boo xam ne foo ko taf mu jeexital ci rek léegi su boobaa mu daal nekk tampon ko loolu kon matière mën na caa nekk boo xam ne du doon jëmmi xaalis bi ci boppam mm. euh, kii mooy fan yi dañuy dégg ñuy wax jullit fay faat hmm. te gisu fenn hmm. hmm. fay faat euh, euh, gisuma am na ci am na ay téere yoo xam ne ñu ngi koy wax ne julli la gu ñuy def goo xam ne ku am bori julli yu bari boo ko defee mel na ni ay julleem wàcc na ko loolu am na ay téere yu ko yu ko yu ko wax waaye euh, man awma ci gisuma sukkandikukaay bu wér bu ma mën a sukkandikoo bu tax ma man koo jëfe bu ma jàpp ne war na ko mën a buy tax daal buñ ko buñ buñ sukkandikukaay ci alquran walla ci xadis wala ci waxi boroom xam-xam yi nga xam ne sukkandikoo nañu seeni xam-xam gisuma ko sëriñ bi it gisuma fenn foo xam ne sëriñ Tuubaa ci boppam radiyallaahu anhu gisuma fenn foo xam ne euh, fu ko bind la am na benn téere bu ñuy wax adiyatu sanati te bu ñu ñool dajale ci ay ñaan ñu def ci at mi wax ne sëriñ bee ko def def ca ne sëriñ bee wax loolu waaye ñu du téere loolu téere bu sëriñ bi taalif moom lu nit dajale la mool ko bindi ca ne sëriñ bee ko moo ko taalifa waaye du loo xam ne moom moo xam nga loolu dañu koy def dajale dara def def ci turu sëñ bi ba tax na kon mënu ñoo dogg ci ne loolu moom sëñ bee ko wax xam naa li ma xam daal moom mu wax ko te jàng ko ñun ci fiq mooy képp koo xam ne nga am boori julli euh, da nga ko war a fay lu mu bari bari ak lu mu yàgg-yàgg danga nga koo war a fay e, boo demoon ba xamoo sax bor yi nu mu toll teewul danga nga julli ba sa dal ci ne war na mat nga doog a bàyyi loolu moom sëñ bind na ko mu ngi ci joxor nafis muy téere bi nga xam ci la waaye laxdar yi wax na ca ni ñuy faye julli gu rafaat tey daa wax ne e, nit ki bu amee bori julli war na koo fay ci lu gaaw te waru ko yeexe waru ko yeexe waru ca sàggan noonu la ko wax itam nañ koy defee lépp ba mat eh, nit ki nag bu fekkee ne am na bari julli yu ko faat te faat ga doonoon loo xam ne ak càggante la du woon ngant faat googee day am da ci am bàkkaar bàkkaar nag ku ko am ku ne war ngaa jéggulu yàlla xëy na su fekkee ne dañuy julli nit ki day julli julli gi ngir ñaan yàlla mu jéggal ko càggante gam defoon ba ba ba julli yooyu faat ko te te te du woon gànt moom loolu leneen la tey eh, kuy jéggul yàlla it sañ ngaa julli njëkk def tawasul ca julli ga ngir ñaan yàlla jéggal la su waa loolu moom eh, man sa ko nangu bisaakumulaa gis naa sax mbindum Cheikh mm-hmm. mm-hmm. wax ni eh, biddaa mm-hmm. wax ni nit ñu baax ba fekkee woon tamit dañ ko daa tere ko ah, mu ko ko ko. liñ ciy mooy rek eh, eh, ñu labiré mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ñuy roy ci kilifa yu mag yi ci seeni kilifa eh, lépp loo xam ne nekkuñu di ko def ci seeni kilifa duñu ko def rek ñu ñu mottandi ko mm-hmm. fay faat lu ñuy def fa Tuuba waaw jumaay Tuuba ak jumaa yi nga xam ne yëpp ñoo nekk fa Tuubaa ci penc ci kilifa ya dee su fa woote julli yooyu di ko fa julli man dum naa eh, ba am lu ëpp ñeen fukki at te yëguma xawma ne julli ko faat am na ci lislaam <coughs> loolu mooy kon loolu mooy kon du lu siiw ca duñ ko def fa Tuubaa kon ba bu dee am ay benn benn lay doon te ñoo koy ci seen bopp lañ koy kon <coughs> waaw Euh, même ci ngir imam Malik daa am lu ñuy wax amalu ahlil madina. Mhm. imam Malik léegi xadis ñëw sax bu dee xadisu ahad. Mhm. muy daa wuuteeg li waa madina doon def. kon dama jàpp ci li waa madina doon def kon. xam mhm. nga borom xam-xam fa ne. yoo xam te ni duñ wuute njàngale yu bi sallallahu alayhi comme ni nga ko waxee Touba ay borom xam-xam fa nekk yoo xam te ni duñ wuute njàngaleem sunna duñ wuute njàngaleem Cheikhul Khadim kon lu ñu xamut ba jamono ji ku ko bëgg a sos kon day mel lu luñ sos la ci diine kon. Eh, sëñ bi kon dama laaj bi moom maa koy laaj. ngay hmm. laabiré eh, njaboot gi ci wàllu mbind yi ñuy wax ni suñ tubaa ko def te fekk defu ko ak nuñ ci man a nuñ ko nuñ ko mën a moytoo ak ndax kalaamun damay dégg la ñu ni sëñ bi defu ko ndax lu wér la. waaw eh, kalaamun qadimun laa yumallu samaahu loolu moom ay ba la yoo xam ne sëñ bi ko. du ay du waxam fi ko fekk ci borom xam njëkk yi kenn ci ñoom moo ko wax li ñuy labiré nag mooy euh, mbindum sëriñ bi dafa am liggéey bu rëy buñ ci war a def boo xam ne defaguñ ko na mu waree mooy dañ ko war a dajale segg ko segg ko ba xàmmee la ca bokk ak la ca bokkul la ca bokkit ñu saytu ko ba wéral ko maanaam wéral ko ba nga xam ne dana dëppoog na ko sëriñ bi bindee woon du am ay soppi du am ay yàq du am ay ay ay ay yokk wala ay wàññi ba nga xam ne daal des na mën a xam ne lii lépp lu njëkkati ne lii waxi sëriñ bi wala mbindama mu wóor ne mbindama liggéey boobu nag euh, bu ñu a def la boo xam ne defaguñ ko na mu waree kilifa yi tàmbali woon nañ ca dox ay jéego ku mel ni Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu euh, bi mu defaree daaray kaamil mooy bibliothèque bee ca Touba wutoon na ay machine ay eh, imprimeur yoo xam ne lam jublu woon mooy dajale mbinum sëriñ bi mool ko lépp ba mu daje ñu dajale ko ci benn barab ba jot na ca dajale lu bare bari mool ci lu bari itam ba dajale ko foofa eh, waaye liggéey boobee eh, jéego yi ci war a topp ba ba ba ak saytu ya ba mu mat ba àgg fa mu war a àgg des na tuuti kon fi mu ne li ñu mën a wax mooy bari na lu ñuy askan ci sëriñ bi te du ay waxam wala du du du du mbindam léeg nga gis téere bu ñu bind mool ko euh, bind ca turu sëriñ bi ne moo ko moo moo ko moo ko wax wala moo ko taalif te fekk taalifu ko ki nga xam nag mën a gut xàmmee loolu kon nay sukkandiku ci borom xam-xam yi balaa jëfandikoo dara ci loo xam ne lu ñuy askan sëriñ bi la te te si wóorul ne moo ko def mu sukkandiku ci gëstukat ba am ca ko leer mu door ko def rawatina bu dee loo xam ne lu ñuy siiwal la euh, muy doon loo xam ne buñ ko askanee ci sëriñ bi euh, mën naa mën naa bu dee bu ca njuumte amee day indi leneen waaw mu ko sëriñ bi lépp lu ñu askan ci moom na nekk lu lu wóor na moom la ndax lépp loo xam ne njuumte la ci diine walla lu wuuteeg sunna walla lu wérul loola moom bokkul ci yëfam du lu mu bind du lu mu wax waaw. bisakumullaahu xayran sëñ bi kii mu laaj nii lan mooy subon subon ci jàng alxuraan. Euh, subon li muy firi mooy juróom-ñaareel mooy un septième loolu la firi rek ci wax nii li ñu ci jublu nag ci njànginu alxuraan mooy kii jàng alxuraan day séddale euh, kaamil bi juróom-ñaari xaaj xaaj bis bu nekk mu jàng ci benn xaaj nga xam ne bu juróom-ñaari fen yi matee. mu wàcce kaamil bi euh, am na nu ñu koy seddalee euh, noo xam ne xamees na ko loolu moo tudd moo tudd subon waaw mhm. mhm. euh, kii mu ni ñaari laaj yu bokk yu jigéen mhm. muy ndax sàngara sobe la ak ndax damay liggéey ci barab boo xam te ni dañ fay jaay sàngara waaye man section bi ma nekk di fa liggéeyee la may jaay du sàngara waaw sàngara sobe la moom it te sobe dafa jaay dafa dafa xaraam kon jaay sàngara dafa dafa xaraam ni ko jënd ko ak jëfandikoo ko xaraame noonu la ko noonu jaay ko itam mm, xaraame eh, ginnaaw nag nee na moom fi muy liggéey danañ ko fa jaay waaye moom fa mu féete duñ ko fa jaay eh, kon loolu moom yàlla musal na ko ca. Mm-hmm. Mm-hmm. léeg-léeg ma yàpp koo xam te leer na ma ni hmm. kuy jaay boppam la hmm. wala koo xam te leer na ma ci fu ñuy mooy yàlla jëm hmm. ndax bu ñëwee su ma ko yóbboo dina am bakkaar ci loola oh, waaw yow da liggéey li ngay liggéeyee moom dagan na mooy fab nit yóbbu ko barab sàngam fab nit yóbbu ko barab sàngam euh, loolu ngay liggéeyee moom da lay fay ca ci ci ci yóbbu googa euh, kon sëf client bi rek yóbbu ko ci barab duñ jàpp ne moom mën nga ci am nga ci bàkkaar su fekkee doon loo xam ne da ko yóbbu noonu rek te la dara nga xam ne danga koy dimbale ci ci ci ci ci ci ci mooy yi euh, bu ko defee kon du mën a jàpp ne rek sëf client bi rek mu jëm barab sàngam rek sax wóoru la ba xam barab sàngam ba muy jëm nangam la fay defi client boo tasel ci yoon wi rek nga di ko nga di ko fab la gën mooy client bi moom bu la waxee fa mu jëm rek mën nga koo jël wàcce ko foofa mu fay la li la war a fay léegi nag la muy defi moom yow loolu sa yoon nekk ci. kii mu ndax dagan na bu julli marché ci barabu ñaan ma jàng ay xasida waaw julli day dafa am nuñ ko nuñ ko tërale ci charia nu fu muy tàmbalee ak fu muy yem ak barab bu ne luñ cay def dafa am ay bërëb ci julli yoo xam ne man maye nañ ku ca ñaan ak béréb yoo xam ne deesu ca ñaan liñ ko xamee bare ñuy ñaanee ci biir julli mooy bu njàngee fatiha ba ba jeex jeextalu fatiha mu ne wala dolin ak bu nit ki dee si jot ak bu dee taaya taaya ju mujj foofu la ñuy ñaane ak ci xunut barab yi nga xam ci la ñuy ñaane ci julli bu ko fee nag barab yi nga xam ci ci la ñuy ñaane waxiinu ñaan wu ne mën a ñaane rek waxin woo dagan na moo xam waxi way la moo xam waxi waxi waxi waxi wesar la waaye nag li nga xam ne moom moo gën a mucc ayib daal mooy li nga xam ne mag ñi daawuñu ko def ñii roy daawuñu ko def ñu mañ ko def ñoom mag ñi bu daan julli di taaya wala ñu sujjóotal dara daaw ñu jàng ay bayit ñaan goo xam ne ay bayit la yu ñu way daawuñ ko jàng ci seen sujjóot daawuñ ko jàng ci seen taaya kon ku leen di roy bañ a def noonu moo moo gën a mucc ayib lu tax nag ñu ne euh, daganut dagan jàng ay bayit yoo xam ne ay way yoo xam ne ay ñaan la waaw fekk ñaan rek la nga xam ñaani kese kese la amul lu ko jiit lu ñaan amul lu ca tege loo xam ne du bi nga xam wax wax ñaan daal nekku ca ñaani kese kese la waaw euh, loolu duñu wax ne daganut waaye moo mën nañu wax ne xilaaful awlaa la maanaam wuute nag la gën waaw la gën mooy nga nga nga ñaane ni mag mag ñu baax ñu daan ñaane te mooy wax lañuy dox wax joo xam ne ay ñaan lay joge ci alquran baa ci sunna baa ci làmmiñu nit ñu baax ñi te ñu wesar ko ñoom noonu lañ daan ñaane waaw waaw kay. kii mu ni ba kenn mu ni man de damay def saa yu ma xëyee dina jàng la ma mën ci xasida mm-hmm. waaye dafa mel ni mënumaa jàng alxuraan ndax loolu dama yóbbul euh, jàng alxuraan moom képp koo xam ne def nga ko ko képp ku yëg ci sa bopp ne mënoo jàng alxuraan war ngaa tiit ci sa bopp te war nga caa jóg. ndax day am am na ku ko def ku ne am nga gàllankoor ci wàllu diine am nga gàllankoor ci wàllu diine bula la dal boo xam ne war ngaa jóg ci faj ko ni nga xamee nit am na ay signes yi feeñ ci yaram yoo xam saa yu feeñee day xam ne feebar na mu war a gaaw seeti docteur képp ku yëg ni mënoo jàngal Qur'an mën ngaa jóg ci sa bopp ci sa wàllu diine ndax sëñ mag bi mu wax ne képp ku dem ba mënoo jàngal Qur'an am na juróom-ñaari yëf juróom-ñaari gàllankoor. yoo xam ne ñàkkut bu la ca nag sant na yàlla ne yàlla musal na ko ci yooyee mooy wax ne ma saddani an kitaabillahi xaaliqina faqrun wala dararun sadda allazi tuhima ma saddani anhu ashyaun tuaddu ila sab'i razaili saddat kulla man xurima äh, dégg wa kibrun wa israrun ala laibin xubbun li dunya atimaadun lil wara nahama donful yaqini allazi sadda al bariyata an tawakkulin wabtidaaun tarku si xutima sëriñ bi na man day eh, ak ñàkk ak lor ju ma tey jàngal xaan yàlla musal na ma ci juróom-ñaari yëf yi nga xam ne mooy gàllankoor nit ba du mën a jàngal xuraan yàlla musal na ma ci juróom-ñaari eh, ñaawteef yooyee juróom-ñaari ñaawte fee mooy bàkkaar bàkkaar bu nit jëf eh, ba tax bàkkaar boobee gàllankoor ko ba du tax mën a jàng alquran eh, bàkkaar ba nag tuddul bàkkaar rek la wax xam ne kon bàkkaar bu man doon rek waaw bu mag bu ndaw bu ne rek bu ko nit defee am bàkkaar rek bu la yàllay topp te jéggaloo ko rek mën na la gàllankoor ba du mën a jàng alquran mooy zandun wa kib mooy ak rëy rëy kum ne ci moom dana ko gàllan ko ba du may jàng alxuraan nuur ci am pox sax ci caaxaan di caaxaan di di forek foo toll dëkk ci porek neen loolu dana tax nit ki mën a àdduna gu sax ci xol ba dëgër ca neen dana tax nit a jàng sukkandiku ci bindeef yi euh, xër ci alal ak sukkandiku ci bindeef yi euh, nee na loolu dana tee nit ki mën a jàng alxuraan euh, ñàkk a wóolu yàlla doon ful yaqin ñàkk a wóolu gëm yàlla gu gu gu dëgërut waaw neen dana tax nit ki du mën a jàng alquran ñàkk wakiilu ci yàlla waaw nee na ñàkk wóolu yàlla mooy tax di wakiilu ci yàlla ndax yàlla ku ko wóolu da nga da nga wéeru ci moom ku ko wóolu dëgg-dëgg da ngay da nga koy gëm wakiilu ci moom bàyyee ko sa bopp nee na nit ki ne bu fekkee ne ngëmam dafa dafa dëgërut ba wóoluwut yàlla ba wéeruwut ci moom loola da koy dana ko yóbbu ci mu ñàkk a mën a jàng alquran eh, nee na eh, jëfandikoo bidaa am bidaa boo jëfee biddaa boo gëm sax ca nuur ca di ko def nee na loolu dana gàllankoor nit ki ba du mën a jàng alquran waaw kon daal képp koo xam ne dem nga ba yëg ni mënoo jàng alquran yëgal ne am nga gàllankoor bu ne ci yow boo war a jóg saafara ko ñàkk jàng xasida nag euh, du tey maanaam du wutu jàng alxuraan waaw du ko wutu waaw jàng alxuraan dañ ko digle euh, te taalibey murit képp koo xam taalibey murit nga moom da nga cee am sa sa ndigalul bopp loo xam ne day fedd li ndigal yi ko yàlla digle woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax boo xam ne moom la yaakaar daf ne bépp taalib man la yaakaar waxut nag ku yaakaar kenn waaye nag képp koo xam man la yaakaar noonu la ko waxee bépp taalibe boo xam man la yaakaar na saxal jàng alquran saa yu ne kullu muridin bi yaluusu fal yudim tilawatan li xayri zikrin qadru sim ne na nga saxal jàng alquran bis bu set bis bu set na nga jàng alquran bu ko jënal benn yoon boo dee ko lu mu néew néew na nga jàng ñetti isi bis bu nekk pour a bur ko gàddaay adim tilawatan li zal walaw salaasatan min al ahzaab fi kulli yawmin doona hijraanin kama talabatul ilmi lahu zawuntima wa baadu man tasawafu wa zaamu bi anna ma hum fihi minhu azamu wa dalika dalilu zuurun wa kazib qad garrahum iblisu fihi faqtarib nee na yow na nga saxoo ci daf boo demee ci Masaalikul Jinaan dafa am bunt buy sëriñ bi jàngaleel jàng alquran rek faslun fi tilaawati maa yata'allaqu bihaa am jàng alquran ak la ca aju rek lay wax ci buntu boobee ca Masaalikul Jinaan ci la waxee li may wax nii dafa waxoon ne ama fawaidu tilawati faqat ama fawaidul qiraati faqat ragaba fiha qawlu baadi man salaf baadu man uh, naqat fa man arada alqurba min mawlaahu falyaqra quran la yansaahu qultu fa man yurid rida rahmani falyusbit te dabal quran doog a wax li mu wax ni mu ne njëriñi jàng alquran am na Euh, ci gaa yu baax yu njëkk ku ca waxoon wax joo xam ne ku ko dégg war caa sawar mooy dafa wax ne ku bëgg a jege yàlla del jàng alxuraan te bul ko fàtte nee na waaye man la cay teg man Serigne Touba mooy ku bëgg ngërëmul yàlla del jàng alxuraan te bul ci di ko jàng waaye dee ko setantal mu ne na nga saxal jàng alxuraan bis bu set donte ñetti isim nga ciy jàng bu fekkee ku mokkal nga te bul ko gàddaay bul toppandoo ñaar ñii ñaari kuréel yi bul bokk ci ñoom jàngat jàngati xam-xam yi nga xam ne buñ dee jàng xam-xam dootuñ jàngati alquran waaw dañuy bàyyi alquran teg ko dootuñ dootuñ ko laalati ndax dañuy jàng xam-xam ak ñenn ñiy woote woo ak daanukate bay wax ne lañuy ñuy def a gën a màgg jàng alquran mooy jàng ñu jàng seen wérdu sëriñ mbaa seen eh, taalifi sëriñ mbaa liggéey guñ koy liggéey mbaa leneen lu ñu def daal loo xam ne dañ naan loolaa gën a màgg jàng xam nee na nee na ñooñu loolu ñuy wax ay nar la ak sos neen loolu la ko wax zuurun wa kasib noonu ko waxee daal ne iblis leen nax rek bëgg leen a gàllankoor dox seen diggante alxuraan tax mu wax mu wan leen loolu ñuy ñuy gis waaye loolu nekk lu lu lu wér waaw. loolu mm-hmm. mm-hmm. eh, damay gis ci mazhab bi. Mm-hmm. ngiru Maalik. genn wax mhm. su may jàngaat beneen téere gis wax ji wuuteeg moom mhm. dañ ni lépp ci ngir mi la mhm. waaw loolu ci ngir yëpp la am euh, ndax ngir ngir ci boppam mooy école boo xam ne école ab école ci ci ci ci diine école buy jàngale diine boo xam ne dafa am ay cosaani ay cosaan yu muy sukkandikoo am njàngaleem loolu la ñuy tuddee am ngir ngir moomee nag ay borom xam yu bari dañ ci askano am na man benn borom xam mën naa sos ngir mi wala ay borom xam-xam àndandoo sos ko waaye ñu bari dañuy bokk ci ngir ma nekk ci biir di am am xam-xam am nañ ñoo xam mën nañoo dem ba tolloog ki sos ngir mi xam-xam baa ñu jege jege ko lool bu ko defee di mën a jëlee ay atte ci alquran ak xadis na ko kooka di defee nekk ay mujtahidoon mm-hmm. ni borom ngir mi su ko ginnaaw benn benn ngeen mën naa am biir ci biir ay borom xam-xam yu mag yoo xam ne dañuy dégg alxuraan dégg sunna mën na génne ay atte kon ay wuute day am ci biir ngeen mi ay wuute day am ci menn nger ci benn masala kii déggee ko nii kii déggee ko kenn ndax fa ñuy sukkandikoo atte ba doon wax joo xam ne dañ cey mën a dégg ay ay dañ koy mën a dégg ay déggiin yu yu wuute kon menn ngeen mën na am ay ci menn masala ci ngeen ci menn ngeen mën naa am ay wuute Eh, ci biir borom xam-xam yi ngir mi waaye su boobaa day am lu ñu tuddee al raajax mooy wax ju gën a dëgër waaw ak al mu'tamad mooy wax ja nga xam ne moom la ñu sukkandikoo ci ngir mi waaw su ko defee nag ki nga xam ne moom du mujtahid ki nga xam ne moom nekkul ku mën a ku mën a xam ku mën a lijjanti wutey borom xam-xam yi nga xam ne moom day roy rek day roy rek kooku moom. ci euh, ñaar yooyu lay jëfandikoo raajax lay jëfandikoo lay jëfe ak mootamat moom day laaj boroom xam-xam borom xam-xam bu bokk ci ngir mi borom xam-xam boobee bu koy tontu raajax la ko war a wax wala mootamat mën na koo wax sax lu bokkut ak la muy def moom waaw xam-xam bi nga xam ne moom ci ngir mi la bokk nga xam ngir mi am na lu wax loo xam ne moom convaincre ko. mën naa jëfe moom borom xam-xam boobee loola waaye du ko fatwa buñ ko laajee moom la war a tontu mooy la nekk raajax ci ngir ma ak la nga xam ne moo cay moo tamat ki amul xam-xam loolu la war di jëfe moom waaw kay bi lan mooy àtte wat karawu bopp moom lu dagan la waaw loo xam ku neex def ko ku mu neex bàyyi

son xarit Sall. moom mosul xaar. dafa tey dama tax dugub normal. dégg nga. waaw dégg ko. والأمن والجنة fi salaati wa tasliimi ala muqiimi sunna Assalamu alaykum jàngal ngeen ñu bëri ci koor bi loo xam ne vraiment euh, réeroon nañ daal xam nañ ci lu bëri waaw léegi euh, kii damay ànd ak moom ci liggéey yi mais mafatihal bishri wal amni wal janna fi salaati wa eh, sukkandiku gi ci tul bi moom atteb tul bi rek moom moo koy moo koy leeral tul ci bopp buñ xamee buñ buñ jàppee ne lu daggan la tul mooy nit ku jëfandikoo loo xam ne ko dafa naan wala mu takk loo xam ne day tax weñ du ko dugg du ko bënn yaramam du ko dagg loolu la ñu tuddee euh, tul loolu bu fekkee ne la mu jëfandikoo bam ba mu def ko lu laab la lu laab la lu dagan la nga xam ne alquran la mbaa wax ju baax la bind naan ko loola tax weñ du ko loolu nag kaaraange ci moom daal luy tax weñ du ko dugg mu tax koo tul wala lu mu bind la lu dagan alquran wala wax ju ñaan gu dagan moom la takk ba tax weñ di ko dugg kon loolu lu dagan la moom ndax xeetu kaaraange la rek waaw sa bopp rek la euh, bu fekkee na nag lam jëfandikoo nag lu xaraam la sobe la naan li mu naan ak njabar la nga xam ne sobe la lu xaraam lu yàlla xaraamal euh, wala ay baati bokkaale la wala yu demee noonu daal loo xam ne njabar la ay béjjën ak yooyu yëpp loo xam ne lu xaraam la rek moom la naan ba moom la takk ba tax mu doon ko tax koo tul kon léegi la mu def moom léegi lu lu lu xaraam la euh, bu fekkee ne nag dëpp gi dëpp gi euh, jëli gi dëpp ko jëli euh, loolu sabab rek la maanaam boo xasee xam ne boo xasee nangu ne boo ko takkee yàlla aar la ci nga gëm loola nga xam ne gëm nga ne takk gi sabab la ci kaaraange gi soo ko fàttee dama jëli ko waaw soo ko waxtee damay ko mi ngi mel ne garab gi ngay jëfandikoo ci saa su nekk aspirine bi wala ordonnance bi yaa ngi dem fàtte nga ko fa te heure bi nga ko naan dana jot doo dellusiwaat te boo ko naan da nga am jafe-jafe da ngay loolu moom dëpp gi jëli ko ndax da ko fàtte loolu lu dagan jàppuñu ne dara benn benn kii am na ci benn benn danger am na ci jàppuñu ko. ak bi aju ci li mu doon. li ba nga ci la ngay jël lu mu doon bu fexe loolu bu xasee doon lu dagan rek. mën nga ko moom jëli sabab la mooy fàtte nga dara rek jëli ko jëli loo fàtte rek la mooy bu fekkee loo xam yóbbu ko daganoon na rek boo ko fàttee jëli ko dagan na ni yow ki ni loolu moom dañ ci xam nga borom xam dañ cee dañ cee dañ wuute. wuti goo xam ne ca saxaaba yàlla tàmbalee woon ñu wuti ci ndax mënees na takk walla mëneesuta euh, takk yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee dafa fekkoon ñu daa mocc ak a takk yéefar yi dañ daan mocc mu nit ki daal bu nit amee lu ko lu koy metti dañ koy daan mocc am baat yi ñuy wax ngir saafara ko ak it lu ñuy takk ngir bëgg mucc la ñuy takk ngir bëgg mucc moom lañ daan tuddee Eh, tamima ci arab ñu koy firee ci wolof boggal dégg nga eh, ba mu ñëwee def ne wan leen ma wa daa mocc ñëpp da leen a wax ne leen wax eh, wax leen ma li ngeen di mocce wax leen ma li di mocce baat yi ngeen di wax bu ngeen di mocc bu ko defee képp koo xam ne baat ya ngay wax bu dee ya ngay mocce wax ju dagan rek yow yàlla maa ngi lay ñaan nga teggil ma jàngoro ji nangam nangam su boobaa loola ayut su fekkee baat yi bokkaale la nag su boobaa mu ñu tere ko la nga xam ne ñu daan takk la nag lépp da ko tere woon moom ndax loola jiitu na lislaam tey pas-pasub kii lañ ko daan ci pas-pasub bokkaale lañ ko daan defee kon yañ daan takk yëpp boggal yo moom da ko da ko tere woon waaye mu sax ne alquran ci boppam day saafara alquran day saafara jëfandikoo jëfandikoo day saafara moo xam ne nga ko jàng moo xam da nga koo takk moo xam da nga naan moo xam da ko koo sangoo lu ci mën doon rek day saafara moom alxuraan ci boppam ni si alxuraan di saafara it noonu la wax ju barkeel wax ju barkeel ju jóge ci ku ku ku barkeel noonu lay defee moom itam euh, su ko defee nag boroom xam-xam yi dañoo wuute woon ci njalbeen ba ci jamono ji nekk sax euh, ci loolu am ñoo xam ne dañu ne rek takk moom dee su ko def waaw takk waaw ak lu mën a doon alquran nag leneen moo ca yem xiyaas ko ci na yonent bi tere woon lu ñuy takk ñiitam ñii daganal ko ngir xiyaas ko ci ne eh, la la lee ñu tere woon bokkaale gaa tax ñu tere ko ñàkk dagan gaa ñàkk dagan gaa taxoon ak eh, loolu waaye li ñuy bu dee alquran la lépp lu dagan nga jàng ko rek ngir ngir mucc wala nga dagan mu dagan nga bind ko naan ngir mucc rek eh, su boobaa day dagan nga takk ko ndax yëpp jumtukaay la rek boo boo booy taqale sa bopp ak li ngay li ngay li ngay saafarawoo bi ngay jàng da nga ko tudd sa lamiñ bi nga ko naanee da nga ko ci sa yaram bi ko takkee danga nga ko taqale da ngaa taqoog moom bi nga ko sangoo itam naka eh, naka noonu suñu mag ñu baax ñi nga xam ne nag ñoom ñoom ci ñoom lañ jëlee diine ñu seeni royukaay ñoom dañoo daganal naan ak takk ak sangu ak jàng yépp dañ koo daganal ñoom waaw Cheikhul Khadim radiyallahu bokk na ci ñi daganal loolu. Mm-hmm. bu dee ak lu dagana jëfandikoo waaw. Euh, sunguf ak reen xam nga ci garab yi rek lay jóge bu fekkente sunguf si ak reen bi euh, dafa am. dafa am lu ci nekk dafa am lu ko yàlla bindal lu koy dafa day faj day faj rek day faj nga xam ne maanaam médicament la su boobaa sungu soosee naan ko ak ak ak ak kii ko ak sangoo ko mook nga naan garabug docteur bu mën a doon ñooyam rek waaw ak nga nga diwoo yi ñuy diwoo xeeti diw yii nga xam ne yëpp day day say faj ñooyam rek bu fekkee lu dagan la Euh, bu fekkee ne it sunguf si dafa am ku yàlla ñi xam yàlla dafa walilaay fi xalqi suun <coughs> dafa am yàlla ñum xamal loo xam ne ñu bari xamuñu ko nit ki nga xam ne da ko wóor ne dafa am xam-xam ci ne sunguf si garab sàngam gi euh, jinne da koy bañ jinne daf koy bañ wala seytaane da koy daw dégg Euh, wala yu demee noonu nga xam ne foo ko yore rek loolu da lay sori nga xam tey boo ko suuroo maa nga sangoo ko euh, jinne daf lay da bu fekkee jinne daa àndoo yow day teqali koog yow wala bu doon ay rab day dem wala seytaane du la du la kii su boobaa loolu tam day day day day day dagan ndax euh, jinne ji wala seytaane su rab yàlla yàllaa ko bindee lii mu bañ lii da koy fañ nit ku nekk fi ne am am nga loo xam daal déggoo te yow nga foo ko séenee da nga koy da nga koy daw bu koy fene kon la lay taqale koog moom nga xam ne da nga xam ne kii daa bañ lii rek nga yor ko ngir ngir lam ko bañ lool su boobaa day day day dagan su boobaa loolu lépp du fi du jabar bokkut ak jabar waaw du jabar hmm. euh, mbokk mi mu ni masjidul qiblatayni jumaa ñaari hmm. euh, jàkka ñaari xibla yi mooy jàkka ja nga xam ne bi yonent bi bi yàlla jox ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wëlbati xibla gi di ko jëlee di jógee baytul maqdis jublu ca Kaaba ga julli gam ko fekkoon jàkk barab ba mu doon jël jàkk ji mu jullee te xam ca saasa daal di wëlbatiku jublu màkka nga xam ne julli gi eh, xaaj bi mu ngi ko jublu màkk baytul maqdis xaaj bi mu jublu ko eh, màkka loolu moo tax ñu ko tudde ko masjidul xibla tay ni waaw Mm-hmm. léewi ku nga ku lewiku euh, lewiku moom euh, lewiku sunna la maanaam dafa bokk ci li ñuy wax al fitra fitra mooy ak set set yonent bi sallallahu dafa digle dafa am na juróomi yëf yoo xam ne da ko digle nit ñi di ko def ci seen di ko di ko juróom xeet set yi mu digle ci yaram mooy di dindi ay wex saay bu sëqee ak dindi kawarug uh, gi gog gog ak gog poqutaan uh, ak ay wat ay naanu ak dugg néegu góor yooyu lépp ci nekk lu ñuy dind la ci jëmmi nit loolu dañ ko dañ ko santaane kon leeyu ko ci boppam lu ñu lu digle la sunna la waaw uh, ni koy defee mooy fab lu ñaw rek dagg ci say we dégg noonu lañ koy def fab lu ñaw dagg ko dagg ci say we loolu rek mooy mooy layu ko booy dagg it la nga xam ne moo moo moo ca moo moo dee la dee ca weew loolu ngay dagg bàyyi ca la nga xam ne mooy mooy dund am na nag eh, ay nit ay nit nit nit ñu baax ñoo xam ne nee nañu am na xeetu lawi ko nu ñuy defee woo xam ne buñ ko def ko am na lu muy jariñ nit mooy booy layu ko nga nga njëkk a dagg baaraamu sànqleñ dégg nga baaraamu sànqleñ teg ci bu digg teg ci bu dey teg ci bii ci diggante bi yaakaar naa wolof am nu koy xaw ma nu ko wolof tudde teg ci sànnikaay bu dee ndeyjoor dégg nga bu dee càmmooñ nga njëkkee baaraamu dey teg ci bu digg teg ci sànqleñ teg ci bii nga xam ne xaw ma toom colof teg ci bu sànni bii moom it itam du sànnikaay moom it <laughs> mu ngoog waaw waaw mu ngoog waaw waaw kon loolu daal aw aw lay yéen aw lay kii yoon la waaye du loo xam ne nag lu ñuy sopp la wala muy sunna wala muy lu lu lu ñuy kii lu ñuy askan ci jaamu yàlla daal du ndigalul diine. Mm-hmm. Mm-hmm. aadala aadala. kii dafa ndax dañoo tere kuy dugg ci wanag mu muur boppam safaan ba. Ah. safaan ba. dañoo digle kuy dem wanag mu muur boppam. Mm-hmm. waaw kay loolu la waaw. Ah, waaye te eh, dañ ko digle waaye terewuñ ko. waaw mu ngoog waaw kay ngir kersa wu yàlla. waaw gisaane ak tani loolu njabar la moom daf bokk ci li xaraam <coughs> salaamaaleykum salaam euh, kon nag laaj may laaj dafa jëm rek dafa dellusiwaat ci julli ndax li ci euh, sama borom wax ci ku julli li nga xamante ne bii day day day fa ay ay ay ñawteef may laaj nag ki nga xamante ne bii day jëfandikoo loolu ñuy wax sàngara ak turu te waxtu julli du mu ngi koy def may laaj ndax loolee aaya bi wax ci julli. day kuy julli. waaw te kuy julli daal te teew ko euh, julli gi teew koy def lu lu lu xaraam. Euh, kooka daal kon jeexiti julli euh, duggagu ko jeexital gu julli daal na mu war a jeexital ñoom defagu ko. képp koo xam yaa ngi julli. te di ko defee ni ñu ko war a defee te ragal yàlla ga ca war nga di ko nga di ko sàmmanteel saa su nekk. Euh, kon loola ragal yàlla googu dana dana dem ba dëgër ci xolub nit ki ba dox digganteem ak euh, ab safaan moo tax alxuraan yoo xam ne inna salaata euh, tanha anil fahshaa'i wal munkar hmm. kon kookee na gën a góorgóorlu ci na gën a fonk julli ci di ko waajal ci di ko defee na nga xamee na la ko dañ ko santaan tey tey di jéem a ragal yàlla ci julleem su ca saxee nag ba sax ca ba sax ca ba ragal yàlla mu am ba nga xam ne bu dee jullit dana am teewlu dana am ragal yàlla ci xolam bu yàggee rek incha allah yàlla mën na ko dimbale mu tàggoog jëf ñaawteef yooyu nga xam ne moom la ko yàlla na too. am na loo xamante ni bi rek da xalaat. mënoo ndax. mën a teewlu waaw mën ba nga xamante ne bii buñ julli da nekk ci julli. waaw lii dimbale nit ki daal ci mu mën a teewlu xam nga teewlu mooy concentration téye sa xel ci menn mbir loolu nit da ce war a yar boppam nit dafa war a tàggat boppam ci concentration maanaam téye sam xel ci menn biir ab diir boo xam ne doo doo ko doo ca doo ko ca génne mooy tàmm di xalaat tàmm di xalaat mooy ne tekk di xalaat ci menn mbir moo xam ne sa xel du ne ci lenn lu dul moom xam na ko tàmmal sa bopp ba saa soo ko bëggee tey def euh, man ko sëriñ baa ngi wax ci masali ko jinaan ne képp koo xam ne tàggatoo sa bopp ci concentration ci tàmmalu sa bopp tënk sam xel ci menn biir ab diir jamono nga euh, xam ne ko da ngay bàyyi sam xel rek muy wëndeelu saa su ne ci waxtu ne boo jekkee ba bëgg julli bay julli bëgg koo def doo ko mën kon nit da ci yar boppam sa da yar sa bopp ci jéem ci jàng concentration mooy téye sa xel ci menn mbir diirub jamono <coughs> bu ko defee boo ko dee def di ko def ba tàmm ko saa soo ko bëggatee da koy man bu dee bu dee julli na nag euh, bokk na ci la la gën a dimbale mooy nga xam li ngay def lan la mooy nga xam ne julli déyaale la ak sunu borom maanaam boo dee julli yaa ngi jokkook sunu borom jëf la joo xam ne danga ciy jokkoo ak sunu borom mi ngi mel ne rek koo xam ne day bëgg a gisee kilifa gu fonk kilifa gu mag a mag gu muy fonk muy bëgg a gisee moom ñu wutal ko rendez-vous ñaanal ko ko ba ne ko waxtu sàngam danga nga kilifa gi ci barab sàngam euh, am na protocole boo xam ne moom la war a sàmmanteel balaa gisee moom euh, su ko defee bu dee julli kon nga xam ne yaa ngi bëgg a jokkoog buur bi buur bi nga xam ne moom moo gën a màgg lépp luy màgg ndax lu màgg moo ko màggal te sàkk lépp nga xam ne yàlla ngay bëgg taseel kon da koy waajal loola moo tax ñu ngay waajal julli di jàpp bu la jàpp waree nga jàpp bu la sangu farata waree nga sangu nga xam ne njàpp moomee yaa ngi koy defee ndox mu laab te mën a laabal mooy ndox xam nga ndox piir nga xam ne amul xet amul couleur amul cafka waaw dafa sell nga fam ndox moom jàpp ca wala nga sangu ca loole am na nu muy def sa xol ak say cër di ko waajal nga xam ne bi ngay jàpp yaa ngi def sa ci ne maa ngi waa li may bëgg a dajeeg yàlla moo tax may waaj ni damay waaj nii man ngir bëgg a day yàlla nga xam te ne yaa ngi tàmbalee waajal sa xel ngir lii ngay bëgg a dugg boo boo dee jàpp cër booy raxas bu ne nga yéene ca ba nga koy raxas bàkkaar yaa ngi ci jot a def nga di yaa ngi koy tuub booy raxas say loxo ngay fas ne man de li ma mës a def sama loxo yi li ma ci a jël lépp ci duudu noona maa ngi koy tuub boo koy booy galax ngay jàpp ne li ngay mës a wax ci lu xaraam mbaa nga mas yëpp yaa ngi koy tuub wala nga mas koo jaar si gémmiñ jaar si biir wala booy saax ne ko sa bakkan loo mës a fonte du noona nga nga tuub ko booy booy booy raxas sa kanam nga yéene lépp loo mës a xool ci say bët ci lu xaraam yaa ngi koy tuub Euh, booy masaa sa say say loxo boo koy raxas lañ waxoon booy massa sa bopp loo masa yanu ci sa bopp bii ci loo xam ne safaan la dégg nga booy dox booy booy raxase tànk nga yéene ci nga xam ne ci booy raxas bu ne yaa ngi ciy yéene tuub bàkkaar ba nga ca masa def bu ko defee boo noppee sax yàlla man naa dawuñu far la jégal say bàkkaar ci ci jàppin woowu boo fee boo noppee nga waajal ko ci sol ci am col sol la gën a rafet ci la la nga am wàcc xam ne dangay ngay bëgg a yàlla te yàlla nee na képp kuy bëgg a moom na na na na waaj xusuusiina lakum inda kulli masjid waaw mu ngoog xam ne bi ngay solu yaa ngi waaj yaa ngi solu def sa xel ci da ngay waaj kat da ngay bëgg a julli moo tax ngay sol li ngay sol nii boo soloo ba noppi xeeñ xët gu neex dox dem nag ci jàkka ja xam ne yaa ngi jëm kon ci barab ba nga xam fa ngay daje ji fañ la jox rendez-vous nga far borom foofu nga jëm ngay dox am sëf ci ni da ngay jaamu ji yàlla ba nga àggee nga dugg ca jàkka ja nuyu jàkka ji jir sa tànk ne jor ñaan yooyu yëpp ay waajtaay la nga dikk nag julli sa ñaar rakka yi nga nuyoo jàkka ji toog xaar ba imaam bi ñëw bañ li xam nga jóg nag taxaw doo ko dugg ci julli fekk tàmbali ngaa waajal sa xel bu yàgg li ngay bëgg a def su boobaa nag nga nga nga doog a kàbbar bi ngay kàbbar nga def sa xel ci ne euh, kàbbar bi may def nii maanaam allahu akbar ji ma wax li muy tekki mooy yàlla gën a màgg lépp lu mën doon kon génn naa ci lu dul moom léegi maa ngi maa ngi jàkkaarloog moom armal mal naa rek wax mbaa def mbaa xalaat lu bokkut ak yàlla diirub euh, julli gi may nekk am allahu akbar jooju nga def ko di jàng alquran wala ngay déglu imam di ko jàng su boobaa alquran joojee ngay jàng ngay ngay jàng baa nga di ko dégg ngay nga gëm ci sa xol ne wax yàlla ngay dégg ni wax yàlla ngay wax wax ji ngay wax kat yàllaa ko wax wala wax ji ngay dégg kat yàllaa ko wax ngay déglu la muy wax su fekkee dégg nga arab ba xam maanaa ya nga di ko setantal boo ko setantal tam jàqal te xam ne wax yàlla ngay dégg rek dégg yàlla muy wax moom boo xamul la muy wax war nga war nga war wa war naa jeexit ci sa bu defee nga bi nga taxawee itam taxaw noonu ci kanam yàlla nga gëm ne taxawaay bi nga taxaw nii da ngaa taxaw ngir ngir màggal yàlla ak toroxlul ko booru ko sëgg nga gëm ne sëgg gi ngay def da nga koy def yàlla boo siggee taxawaat nga gëm ne da ngay taxaw ngir màggal yàlla boo siggootee nga gëm loolu boo siggee toog nga jàpp ne jotaay bi ngay def da toog ngir màggal yàlla boo siggootaat noonu nga xam ne jëf ngay def ci jullit yëpp da ngay gëm ne du ay gymnastique du am po waaye ay jëf ay yëngatu la def ngir di ko màggale di ko jaamoo di ko jaamoo yàlla ndax li ngay def ci julli lépp ay jëf la yu ñuy def di ko màggale ku ñu fonk am na ñoo xam bu ñu seenee seen kilifa dañuy jóg taxaw taxaw ne tekk taxaw kon dañ koy màggale kilifa ruko maanaam sëgg nii rek dañ koy màggale kilifa am na ñoo xam bu ñu see bu ñu àggee seen sëgg fab seen jë teg ko ci seen fab seen loxo teg ko ci seen saa sëgg nii dégg nga euh, am ñoo xam ne bu ñuy màgg seen kër dañuy dañuy dañuy dañuy sujoot dañuy sujoot sujoot boobu nag màggal googu ñu ngi ko daan defal xiram ya mooy teg sa ci suuf si ngir màggale ko koy jàkkaar lool waaw ngir màggale ko leneen euh, loola loola moom moom itam nga jàpp ne ñooñe loola ñoo ñooñe la màggale ku dul yàlla yow yaa ngi koy defal yàlla yow waaw ko defee boo sigee toog toogaay bi ngay toog noonu nga gëm ne moom itam toogaay bi toog bi ngay toog banque say tànk na tekk yaru nga gëm boobu màggal yàlla nga ci jublu noonu ngay jàppee jëfi julli gi ba ba ni muy jeexee su ko defee teewlu boobu ngay teewlu ci li ngay def nga xam looy def lu ne am na loo jàpp ne moom ngay moo la tax di def lii ngay def su boobaa sa xel dana nekk ci li ngay li ngay li ngay def loolu rek def saxel ci li ngay def rek ne looy def loolu nga jàpp ci saxel xel ne lii laa ci jublu diiru yaa ngi julli eh, loolu daan la dimbale ci nga teewlu bokk na ci li dimbale nit ki ci mu teewlu itam mooy bu taxawee di julli mu fàttaliku bis buñ ko tëralee bis bu doonee ab néew buñ tëral nii nit ñi taxaw tiim ko di ko jullee buñ koy buy sëgg booy rukkoo nga def nga fàttali nga fàttali ci biir rukkoo bi saa suñ lay yor ci bàmmeel nga xam ñu ngi dugal te àgg googu sa jëmm ji ñu ko yor noonu ci bàmmeel ngay fàttali ko loolu booy eh, sujjóot ngay fàttali bu ñuy fab sa bopp bi di ko bu ñuy lettale ci bàmmeel bay jàkkal di sa jëb di ko jàkk jubbanti muy sës ci kuusu bàmmeel yi noonu sa yaram bi bàmmeel saa su nekk mu mu wala boog booy sujjóot nga fàttaliku ne suuf si nga teg sa jabi ci la la yàlla bindoon yaa ngi nii ci kawam di dox waaye bis boo faatoo ci la lay suuraat nga seeyaat ba doonaat suuf soosu yàlla dana la génnewaat ci suuf bindaat nga doonaat nit jógaat taxaw mu yóbbu la ci penc moom lay atte atte la yóbbu la ajana ca safaan ba minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra dégg nga Euh, kon yooyu yëpp nga di ko bàyyi xel boo toogee ci diggante ñaar sujjóot yi maa nga toog di taaya nga fàttali ko bis buñ lay dij ci bàmmeel bis bu buñ la suulee ba noppi ba ba nit ñi doon suul dem maa ñuy waaj a dem euh, ba malaaka yi mun karam nakir ñëw delloo si sa ruug gi dugal ko ci sa yaram bi ba nga xam li tàmbalee ci sa ndigg ba ci sa bopp lépp day dekkiwaat nga xam ne nga àndaat ak sam xel mën toog mën a wax ñu toog loola ci sa digg nag di laaj ngay tontu nga fàttaliku jotaay boobu ngay toog ci sa bàmmeel boo boo dee buñ lay nga xam ne kon yooyu nga di ko fàttaliku ci biir julli gi dana la génne sa ci ci ci ci ci àdduna waaw su ko defee nag bu dee koo xam ne nag yàlla dimbali na ko ba mu dëgër su boobam saa su tàmbalee julli rek màggug yàllaay teew ci kanamam moom moom màggaayu buur bi mu taxaw ci kanamam buur bi mu bi mu nekk ci kanamam jàkkaarloo mu di wax ak moom màggaayu buur boobu lay yëg waaw ndax saa soo yëgee teewaay ab teewaay saa soo ko yëgee teewaayu ki nga nekkal saa soo ko yëgee da nga ko bàyyi xel waaw fi mu ne boo duggoon ci mu nekk boo xam ne nit a nga fa waaye yëgoon ne nit kaa ngi fi mën ngaa defee ci nee bi noo xam ne bis boo yëgoon ne nit kaa ngi fi <laughs> doo ko def fekk yëg gi nga yëg teewaay bi teewaay bi mu teew ci diine bi moo tax nga soppi doxalin nit ki tam saa su yëg gi muy yëg yàlla ah, dëgëree ci moom rek saa su taxawee ci kanam yàlla yëg ne mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi yàlla nga koy gis di ko dégg di xam li mu nekk lépp yëg-yëg boobu dana ko jural mu mën a teewlu moo kon yii daal di ko bàyyi xel bokk na ci liy dimbale nit ci mu teewlu ci biir julli dama doon laajte euh, diggante jàng alxuraan bi doon wax léegi. Hmm. xam nga jàng arab fer ijji di jàng alxuraan euh, am na différence ak par exemple nga koy jàng ci su fekkee ne dañ ko bind ci français yow di nga wax saa bi yëpp commencement ba ba mu jeex mais ci français nga koy wax léegi ndax am na différence loolu ndax dinañ nangu loolu wala déet. waaw uh, alquran uh, wax yàlla joo xam ne buñ ko dee jàng nga di ko dégg booba ay kàddu lay doon soo ko dee boo ko tiimee boo ko dee xool nii ay mu ne ci kanam bi boobaa ay ay ay ay ay ay xaraf la soo ko dee setantal ci ci ci ci sa xel boobaa ay ay ay ay ay maanaa la Euh, su ko defee baat yi ba alxuraan ay baat la waxi arab la ju ñuy tudd ci al ci làmmiñ su ko fekkoon kon dañ ko war a tuddee nañ ko nañ ko waxe nañ nañ ko na na nañu baat na baatu arab ya tëddee ni arab di waxe baat bi noonu nga ko war a waxee la baat bi nañ ñu koy waxee ci làkk yi daal noonu nga ko mën a waxee noonu nga ko war a waxee ci prononciation bi ak ci euh, kii bi ci tajwid beeg yëpp bu fekkee yàlla mën loo na la ko bu la ko yàlla mën loo mën ngaa war ngaa def sa kem kattan ba la nga man lépp nga def ko ba waxee ko nanga xam ne fa la sa kattan yam nga waxee ko noona loolu nag la la cay dimbale mooy nga man koo jànge ci làkk biñ ko maa nga mën a liir làkk bi mooy nga mën a jàng arab fer iji fer iji nag du lu jafe a jàng rek ba mën a bind man a liir nekkul lu jafe loo xam ne nii jàngal kon amee solo ci dundug jullit bu ko nit ki euh, xamee dana ko jaara mu def temps bu muy jàngee ba mën a lire arab waaw ndax soo demoon ci dëkk rek réew moo xam ne miino fa rek am làkk bu ñu fay wax danga def effort ba mën a bind làkk ba mën ko mën koo wax mën ko liir ndax say intérêt yu bari ca aju wax boo ko deful day manqué lii ci mbirum diine la moo xam ne am na intérêt diine bu bu réeree bu ci aju boo xam ne jar na ci yow nga jàng arab ba mën a bind mën a liir ba fer iji ndaxte fer iji googu moo lay jokkale mooy tax nga mën a jàng alquran ca nañ ko bindee ndax alquran tudd baat yi ak dégg ko ak xool xool ko lu ci ne tuyaaba la booy xool araf yi kaamil nga ubbi ko di xool rek di xool mbind mi rek da ngay am dañ lay bindal tuyaaba ngay tudd baat yi xam nga li muy tekki xamoo ko ñu lay bindal tuyaaba ñu koy wax nga di ko dégg xam nga li muy firi xamoo ko ñu ngi lay bindal tuyaaba kon jàng li lay dimbale ci nga mën ko jàngee niñ ko war a jànge mooy nga ji mën a bind mën a liir bu fekkee defagoo ko nag nga xam ne faw danga koy jàng ci weneen làkk wala da koy jàng jàngum gumba mooy luñ lay waxal nga di ko mën a waxtu doo ko dégg la ci am solo mooy eh, fexeel ba baat bi Eh, nga di ko waxee ni ñu ko war a waxee rek dégg nga donte yaa ngi koy liir ñu bind ko ci français wala anglais waaye bindin wi xereñ nañ ci ba nga xam ne soo ko ci dee liire euh, yaa ka koy liir ci arab yéenay bokk nu ngeen koy waxee su boobaa dara nekku ca su boobaa euh, dara nekku ca bu fekkee ne nag dafa am ci làkk bi ñu ko bindee ay araf dafa am ci arab ay araf yu amu ci làkk boobu ba tax na prononciation bi day des kon boo tuut njàngin wa dana des dana des waaw uh, bu ko defee bu desee nag kon des na rek waaw uh, waaye boo ko dee liir itam ci ci ci français wala ci anglais te fekk yaa ngi koy tuddee baat yaa ngi koy tuddee ni ñu ko war a tuddee na xam ne ki jàng arab ka koy jàng ci arab na nga koy tuddee yaa ngi koy tuddee noona kon yow yaa ngi yaa ngi jàng alquran mu des nag Euh, liir xam nga liir li muy firi mooy ngay ngay xool dara di ko di di ko tudd xam yaa ngi xool baat yi yi ñu bind ci arab xàmmee arab yi di ko tudd nañ ko lool moo tudd jàng nag loolu ki tiim kaame di jàng nga mi ngi gis baati arab yi di ko liire noonu kooku fi mu day am tuyaaba joo xam ne du bokk ak ki koy liir ci anglais wala wala wala kii wala wala français wala tari kii tari nga xam ne nekkul di gis di xool ak ki jàng ci benn làkk ñoom ñaar fi mu ne ka ko tiim ca kaamil ba ca arab ba di ko jàng moo leen di ëpp tuyaaba waaw tey sëñ bi li ñuy laajte nag daanaka wax dafa jëmaale ci ci ñaari baat yi nga xam mm-hmm. ne saa soo leen di dégg ñu wax mooy ñeetaan ak keñaan ñu mhm. mhm. mhm. waaw kiñaan ak ñeetaan dañoo dañoo jege te bokkuñu euh, kiñaan mooy jullit bu jub bu am xéewal bu koy amal njariñ Euh, am keneen nag koo xam ne moom daa bëggoon julit bii julit bu baax bii am xéewal gi ñàkk loolu ko loolu ko yàlla mu ñàkk ko loolu mooy iñaan xubbu <laughs> zawali ni'matin an muhtadi huwa almusamma indahum bilxasadi li kawnihi fiha lahu salaahu de wa kawnuhu wa yurtija biha lahu lfalaahu mooy loolu jullit daal ab jullit bu jub bu am xéewal goo xam ne dana ko jariñ ci diine wala ci àdduna euh, am na keneen koo xam ne moom daa bëggoon jullit boobu ñàkk loolu mu am loolu ko yàlla jox daal yàlla xañ ko ko daal loolu la bëgg waaw loolu nag moo bon bon a bon nag moom loolu lu bon la loo xam ne nit ku baax du ko def waaw euh, wax ne alxasuud la yasuud waaw ab ku iñaan du doon sang mukk ab ku iñaan du doon du doon sang maanaam doon ku baax du féete kaw kenn ndax ab sang mooy ku kuy jariñ nit ñi ku yéene nit ñi jàmm yéene leen jariñ di dox ci leen koy jox waaw ki nga xam ne bu nit ki amee lu baax nga nga bëggoon mu ñàkk ko moom doo xalaatoo ko ko wutal kon ku iñaan du nekk sang lu bon la lu xaraam loo xam jàngoroy xol la jàngoro ju jàngoro jël ci jàngoroy xol yi la bokk yoo xam feebar la boo xam bu dalee nit ki nit ki war na koo faj yi nga xam bu amoon bu amoon crise dégg nga ni mu ko war a faje bu amee jàngoro kiñaan jàngoro kiñaan bu ko dalee noonu la ko war a faje naa dem ci ci médecin jàng docteur xol mu fajal ko ko ba bu ko xamul bu ko amul mu fexee am tegtal yi faj jàngoro kiñaan mu jëm koo jëfandikoo loolu mooy ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na day lakk ay ñaaw ay ay ay tuyaaba ni sawara di lakke mat maanaam nit ku baax nit iñaan la muy def ci lu baax la ko ci yàlla fay ba ja kiñaan ngaa koy lakk ba mu jeex ni sawara di la ke mat waaw kiñaan noonu la mel doy na doy na doy na ci ki iñaan mafatihal bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna mafatih nit ki iñaan saa yu ki mu iñaanee amee xéewal gu bees rek xolam gën a tàng te yàlla moom daa baax yàlla day may nit ñi xéewal ba noppi di ko yokk ki iñaan nag moom kon ginnaaw xéewalu yàlla googu lay bañ te bañ yàlla may kenn xéewal te waaw waaw te loolu te suñu borom daa moom moom doon koo xam ne ku baax la moom kon moom du dëkk ci du dañ di du dañ ci xol bu xol bu naqari xol bu metti xol bu tàng moo tax Sëriñ Tuubaa di wax naan xulóobu man lam yuhibbuni ala wajalin wala yulaaquuna maa raamu wala baaba ñi nga xam ñëpp dañ ma bañ seen xol du sedd mukk ndax li ko yàlla defal la ñuy bañ te loolu saa su dafa sax te day yokku kon ñoom toujours seen xol day gën di bon ñuy gën di naqari am naqar kon loolu rek doy na musiba kiñaan xol bu tàng boobu muy dëkkee rek musiba moom rek doyoon na ko mbugal doyoon na yàlla nag doog a doog doog a ñëw kon xij kiñaan mu baaxut bu dee ñeetaan mooy xéewal gi nit ki am nii eh, yéene nga ko ko bëgg nga ko am yit waaw nga ko ko waaye bëgg nga ko am ni moom loolu mooy ñeetaan xéwal gi yow kii am na ko yow amoo euh, bëgg nga mu mu deseeg moom nag bëggoo mu ñàkk ko waaye bëgg nga ko am ni mu ko amee loolu euh, dagan na waaye gënut ci lu dul ñaari yëf yonent bi saa su ne na ñaar ci ñaar rek ñaar rek jaare ñeetaane mooy waaju yàlla jox xam-xam mu di ko jëfe guddeeg bëccëg ak ku yàlla jox alal ju lew mu di ca mu di ca def mu di ko def ci yoon mu ko ca def lu baax guddeeg bëccëg ñoo ñaar rek bu moom ñoo ñoo ñoo jara ñoo mat a ñee waaye bu dul loo noonu nga xam ne loolu itam ñeetaan yooyu ci tuyaaba la jëm tuyaaba mooy kii mi ngi am tuyaaba joo xam ne bëgg nga ko am ni moom kon loolu bëgg googu saariho ila magfiratin min rabbikum ak saabiho ila yooyu ci foofu lay jëm nit ñu baax ñi dañoo war a njëkkante ci lu baax kon ku def lu baax ku am lu baax loo amul ku am lu koy dolli yiw tuyaaba war nga ko war ngaa bëgg loola yow ndax nga ndax nit ñi dañu rawante ci ëpplante yi tuyaaba bu dee nag xéwali àddina kese nii rek la gën ci jullit mooy lu ko ci yàlla jox mu gërëm loo ko te doy loo ko lu yàlla jox keneen ci xeeti xéwali àddina te joxu ko ko mu bañ ko caa ñee mu yéene ko ko te bañ ko caa ñee maanaam bañ koo mébét a am waaw bañ ko mébét bañ ko ñee ndax ñee boo ko xool boo dee seetaan boo ko dee seet ñeetaane bokkul ci ci ngor daal waaw ci ngor bokkul ci ci ci ci ci ci ci doylu waaw ok nekk li wax Saalif mu xam ne wax lu waxuñ ne yàlla yàlla nga dindi li nga ko may. Mm-hmm. waaye dañoo wax ne ak a neexoon ñu am li mu am. ok boo ci defal yàlla. d'accord ah, am lu ñu doon doon ko mu am. mu mu ni loolu sa bokk nañu tax yàlla boolewul ak ñi duma woon. mu wokk mu wokk allah mu wokk mu wokk waa kay. jotaay yàgg rek. ñu ah. ah. jël tuuti imaam bu dee biral kenn du jàng dara imaam buy biral kenn du jàng dara doo jàng fatiha doo jàng saar doo ko jàng ci kaw doo ko jàng ci doo nekk ba ngay jëkkante di ko jàng doo ko jàng daal waaw bu dee biral moom déglu rek yow moo la war boo déggee ñu ne jàng fatiha farata la ci farata julli farata la ci imaam ak ku julli moom dong ci imaam ak ku julli moom donc ñoom ñaar la nekk farata ci ñoom bu dee maamum bu imaam dee yàllu jàng fàtte lu ñu sopp la ci moom dégg nga su fekkee bu imaam day biral nag moom sunna la ci moom mu déglu waaw nga xam ne kon digaluñ ko mu jàng fàtte moom jàng fàtte nekkul farata benn yoon moom moom waaw mu ngoog déglu mooy sunna bu imaam day biral maamum day déglu waaw du jàng fa du ànd na moom jàng fàtte du nekk ba mu àggal muy ñëkkante jàng fàtte wala jàng sax yëpp di ci dara du jàng dara waaw. jërëjëf.